ñu gis ne opération militaire euh, bu euh, Russie dem foofule si réewum Ukraine ñu bëri nag euh, di jàpp ne carrément non seulement guerre bi dafa am li nga xam ne mooy enjeu économique mais enjeu militaire ak enjeu politique daf see rax est-ce que point de vue yooyu nga si am Clédor waaw mais super parce que tënk nga effectivement triptyque bi nga xam ni moom la enjeu yi revêtir muy mm-hmm. politique sécuritaire ak stratégie man dinaa ci dolli sax euh, am na benn done culturelle boo xam ne tamit euh, ci la ñuy doole pour prendre ko en compte c'est-à-dire Kiev maanaam capitalu euh, Ukraine mooy le berceau de la civilisation soviétique parce que bu njëkk benn dëkk la woon seen cosaan seen aada seen seen seen ancrage culturel base di Kiev la foofu la l'ancienne Russie donc histoire demoon na ba ñoom ñu nekkoon benn Euh, en 1917 euh, Ukraine jëloon indépendance am brèvement après ñu nekk dans la fédération russe Union des républiques soviétiques socialistes URSS donc euh, ba en 91 bi muy jël indépendance am loolu pour pourquoi mu am solo ñu indi ko. pour wane ni ñaari peuples yi benn lañu. peuple bu ñu mel ni sénégale ak rek c'est c'est le même peuple donc Ukraine ak li des ci Russie benn peuple la woon donc. à la faveur de de la chute du mur de Berlin bi nga xam ne dafa intervenir woon 91 ci la euh, état yu bëri ñoom dañu génn ci fédération de Russie librement boobu nag euh, c'était pas Poutine qui était au pouvoir. c'était sous l'ordre de Gorbatchev. Euh, Mikhail nga xam ni c'était on l'appelait l'homme de la perestroïka moom moo gënoon a suub ci président Russie yi fi yi fi yi fi jaaroon yëpp donc moom ci ci magistère am la Ukraine ak yeneen état génne ci jugu euh, fédération de Russie mm-hmm. donc léegi actuellement nii euh, am na loo xam ni bàyyiwuñ ci xel mooy li xewoon Crimée bi ko euh, Russie annexé yàggul il y avait une levée de bouclier mais ci la yem mais fi mu nekk nii dafa am benn benn benn enjeu bu nekk ci Ukraine parce que Ukraine quand même c'est un territoire beaucoup plus grand que la France avec 40 millions d'habitants boo xam ni c'est le grenier de l'Europe en matière de blé parce que exportation am rek day mat six millions de tonnes de blé euh, Europe dafa bëgg a intégrer euh, Ukraine ci ci ci ci moom euh, ci Union européenne et partant dans l'OTAN donc léegi tey jii Russie bu duggoon Ukraine di guerre OTAN amul benn mandat pour intervenir ci diggante Russie ak Ukraine parce que Ukraine nekkul ci giron wu OTAN nekkul aussi ci giron wu Union européenne kooku muy première complication politique et diplomatique léegi Russes yi ñoom pour des raisons sécuritaires du ñu nangu parce que déjà avant avant ñu ñëw ci Ukraine tout autour de la Russie OTAN dafa déployer ay ogive maanaam ay ay xeetu missile ci suuf ak ci jaww ji sax ci satellite donc léegi loolu yóbbu na Russie comme dañ ko cerner euh, sur le plan euh, de la dissuasion nucléaire te autant ay dëkk yu industrialisé ay Allemagne ay France ay États-Unis ay dëkk yu am doole ay Grande-Bretagne c'est c'est c'est de grandes nations quand euh, te te Russie benn Russie la donc ñoom ils ont développé sur le plan de la technologie des armes de toute dernière génération. La Russie. La Russie. La Russie dañu développé benn benn missile Euh, euh, hypersonique bu tudd zircon euh, qui a une rapidité de Mach 27 Mach c'est la vitesse du son c'est-à-dire 27 fois plus rapide que la vitesse du son loolu gaaw na gaaw boo xam ne day rendre obsolète day tax dootul dootul am njëriñ arme yi américains yeeg européens yëpp am def ci ay milliards recherche ci lu jëriñ dara par rapport au missile hypersonique yi nga xam ni Russie testé nañ ko chinois yi testé nañ ko te loolu day tax euh, défense anti aérienne yeeg yooyu yëpp dootul fonctionner parce que xefa xippi mu àgg sa kaw loo am temps wu détecté ni dara te mën na boot ogive bu ko neex nucléaire conventionnel chimique et cetera donc loolu dafa changer radicalement le rapport de force sur le plan militaire mm-hmm. loolu sur la place nit ñi du ñu intégrer boobu mais euh, sur le plan militaire les rapports de force ont basculé en faveur de la Russie parce que dafa créer des armes de toute nouvelle génération yoo xam ne amul benn benn benn parade donc tout le bouclier de satellite yi nga xam ne moom la ñu déployé ci espace bi amatul benn njëriñ parce que bu ci jog boo day day day day détruire sax satellite ndax rapidité kooku muy benn donc sur le plan militaire la Russie est la première puissance mondiale actuellement ah Ah non, non, non, les a les États-Unis qui sont là. Les, les, Américains se plaignent. Exemple, en Syrie, il faut Dougé, le Tchorlidia, parce que l'armée américaine, sa suprématie, mm -hmm. le ciel, euh, mm son aviation de guerre. Mhm. Donc en Syrie, ils donnent plus à une position, euh, etc. etc. Mhm. Donc ils avaient la suprématie aérienne. Mais les Russes, ils ils ont un système de batterie qu'on appelle MS400 ku ko xool ci internet di nga gis MS400 mm-hmm. am na MS500 ak MS600 sax mais MS400 bi kese kese kese c'est des ogives aussi hypersoniques donc avion du mm-hmm. naaw missile missile du naaw mm-hmm. day atteindre et les avions et les missiles donc loolu euh, euh, moo tax ma ni c'est la première puissance militaire actuellement du monde Sur le plan de l'économie aussi, mhm. le partenaire russe est en passe d'être la première puissance économique du monde, c'est-à-dire la Chine. Mm -hmm. La Russie est alliée à la Chine. Mhm. Donc il y a des blocs qui se dessinent euh, avec des enjeux euh, militaires et économiques. Mhm. Donc légui bo djogé ci enjeu enjeu euh, côté militaire bobu. Le côté stratégique c'est quoi C'est le gaz européen. L'Europe 40% gaz Europe mu ngi euh, euh, Russie. te am na benn benn benn benn projet gazier boo xam ne dafa tere nelaw américain yi euh, boo xam ne dafa contourner Ukraine parce que euh, am na gazoduc bu jaaroon Ukraine mais léegi Russie dafa contourner Ukraine pour sevrer ko bu jaar Allemagne euh, c'est le Nord Stream 2 mm-hmm. Nord Stream 2 l'objet de beaucoup de polémiques parce que loolu bu duggee Europe rek Euh, day day day am lu bëri bëri lu muy changer sur le plan stratégique parce que la Russe la Russie euh, euh, arme gazam moom moo koy protéger des des sanctions des Nations Unies donc loolu muy muy muy deuxième enjeu il la Russie tient l'Europe par le gaz mais Clédor euh, désolé je ne vous coupe pas la euh, parole mais bu ñu xoolee malgré euh, tous ces enjeux il faut noter aussi euh, l'Ukraine est un pays indépendant donc sur ce coup est-ce que euh, Poutine nekkul di def fu mu toll nii li nga xam ne moom la ñu tuddee ingérence xam nga on parle d'invasion mhm. invasion c'est-à-dire dëkk bu ñëw envahir dëkku jàmbur voilà c'est vrai que l'Ukraine est un État indépendant voilà mais pour les raisons euh, de sécurité et de souveraineté euh, du ñu bàyyi Ukraine nekk une base de l'OTAN contre la Russie léegi Russie li ñu def tey. mais les États sont libres aussi Clédor. Euh, waaw mais il y a des limites à tout parce que les États gèrent leur sécurité. parce que l'URSS n'existe plus. Euh, non, je parle de la Russie. Je sais. Euh, si j'ai dit URSS, je me suis trompé. Je parle de la Russie. Mm -hmm. c'est vrai que Ukraine, beaucoup de Russie. Voilà. Parce que l'URSS n'existe plus. C'est vrai. Mm -hmm. Mais néanmoins, nous ni dit que Gambie rek bokul Sénégal. Légui Gambie ñu ñu fay positionner ay missiles ni mën na atteindre Sénégal. loolu day am benn préoccupation sécuritaire ci Sénégal. Mhm. léegi benn noonu Sénégal dal di ñew Gambie installer wu fa, installer fa ay bases. Mhm. Donc ça veut dire que kon Gambie euh, suñu mbokk Gambien yi nañ ma baal exemple la rek parce que lañu nekk suñu biir hein c'est pas euh, Sénégal contre Gambie c'est juste pour illustrer mm-hmm. euh, euh, ni mu mel foofu en en en en Russie donc ennemi Sénégal ñëw foofu installé base presque en notre sein loolu ñun buñ ko nangoo ci suñu kaw jëm donc autant autant fi mu nekk nii dafa bëgg a juguler Russie te loolu mënatul nekk moo tax Russie développé ndànk seen ay ay armes yoo xam ne dafa basculer le rapport de force yi de façon drastique boo xoolee ci conflit bi leur mine boo ko xoolee rek nga xam ni tubaab yi dañu jaxasoo parce que ils peuvent pas intervenir contre la Russie tey la Russie a bombardé près de quarante points yoo xam ni yëpp ay bases militaire la ak ay infrastructures militaires de mhm. façon simultanée mhm. partout en Ukraine donc on de 74 installations voilà 74 parce que mhm. ce matin ils étaient à quarante et quelques donc ça veut dire que ça continue léegi loolu ils sont en train de désarmer de désarmer l'Ukraine léegi Ukraine bu amul benn capacité militaire on va voir si l'OTAN va venir à la rescousse parce que l'OTAN ne peut pas s'ingérer dans le conflit et les Russes on averti les Russes sont en train de dire écoute ni on peut les désarmer c'est vrai qu'il a des dégâts collatéraux parce que on, on, on y reviendra parce qu'il y a des Sénégalais qui, sont coincés là-bas et qui ont témoigné qu'il a des civils qui, qui été tués par dizaines donc euh, ñoom ils ont désarmé l'Ukraine euh, pour wane ni euh, ñoom ils sont ils sont plus forts léegi l'Europe ne peut pas s'ingérer dans ça donc l'Europe ne peut pas ne peut pas courir le risque d'une guerre au cœur de l'Europe donc c'est vrai que l'Ukraine est un pays indépendant Russie li ñuy def diplomatiquement c'est une agression c'est une ingérence même les Chinois disent invasion c'est un terme trop fort mais c'est une agression mais une agression boo xam ni la Russie a a choisi de prendre cette responsabilité devant le le concert des nations et a mis en garde les membres de l'OTAN de toute intervention ou de toute ingérence dans ce conflit. Pensez-vous qu'ils vont prendre le risque? qui d'intervenir les membres de l'OTAN non duñ ko jéem duñ ko jéem <laughs> xam nga pourquoi duñ ko jéem. Uh-huh. parce que rapport de force yi du benn. c'est pas le Mali hein là-bas. l'union européenne amoon na benn force au Mali. Mhm. Euh, ay ay ay différentes nationalités euh, européennes amoon nañu avant ñu leen di dàq ay forces au Mali. Mhm. léegi la li leen war a gën a préoccupé fi mu nekk nii c'est une instabilité au cœur de l'Europe su fekkee ni ñoom ils ont des solutions toutes militaires mais nañu dem régler le problème ukrainien parce que l'Ukraine c'est dans l'Europe même si bokkul ci OTAN c'est dans l'Europe même bu bokkul Union européenne c'est dans l'Europe mhm. donc ñoom. effort yi ñu def ba déployer ay troupes euh, euh, dans le désert malien là-bas où xaw ma lan lañu fee wut mais war na leen jaral aussi ñu ñu ñu sécuriser Ukraine parce que mun ñu toog rek euh, dugal Ukraine ba mu sës ba pare rester ci ay principe de dénonciation on ne va pas accepter on ne va pas accepter et mm-hmm. et je rappelle qu'au mois de janvier Poutine est venu avec un document pour faire signer ça aux membres de l'OTAN que bu ñu bu ñu bu ñu élargir l'Union européenne à l'Ukraine mhm. ça c'est une de leurs conditions et à la Crimée mhm. ñoom xam nañu euh, li seen sécurité laaj donc léegi ils ont désarmé l'Ukraine par des frappes ciblées mais am na ay dégâts collatéraux c'est le lieu de signaler euh, que des Sénégalais sont un peu partout en Ukraine mm -hmm. pour la plupart c'est des étudiants Est-ce qu'il y a moyen de les joindre Oui, j'ai leur contact. Euh, ah. J'ai leur contact. Il y a, il y a, il y a, si la régie euh, Mounalen joint euh, carrément euh, ce en que vivre là-bas aussi. Il y en a un qui est, qui en mouvement euh, dans le métro. Uh-huh. Parce qu'ils sont en train de, de s'agglutiner aux frontières, les frontières. Et il y a un, une sorte de racisme. de racisme. On les interdit voilà. l'accès. D'abord, des... pour s'approvisionner, <laughs> uh -huh. a, il y, a des fils devant les magasins, mm-hmm. mais nous, on les sort des rangs parce que leur couleur. Mm-hmm. Bon, les bus euh, qui, qui, vont vers la frontière, on dit les Ukrainiens embarquent d'abord. Mm-hmm. Alors que nous, amuñu foofu lu dul benn benn consul honoraire le consul honoraire il est elle est ukrainienne c'est une dame elle est ukrainienne moom déggul déggul français elle s'appelle euh, Irina Ivashchuk déggul français déggul anglais. anglais donc elle a juste écrit un texte euh, ni leen euh, je m'appelle Irina Ivashchuk consul du Sénégal je demande à tout le monde de rester sans paniquer j'ai informé l'ambassade dans la matinée l'ambassade du Sénégal bi nekk Pologne parce que Pologne mooy dëkk bi fa gën a jege bu ñu am ambassade mhm. donc booy ñoom ñu ngi jëm vers la frontière polonaise pour génn foofu quoi Euh, euh, j'ai informé l'ambassade dans la matinée. Nous attendons un message de l'ambassade sur nos actions. S'il vous plaît, restez en contact. Bon, restez joignable, le bougon ko français, mon moo non. Mhm. Donc, mom, nee na yëgal na suñu ambassade bi nekk euh, Pologne te mu ngi xaar ndigal pour ñu xool ñoom lan la ñuy def. ok donc may interpeller le ministère des affaires étrangères sur la situation de nos compatriotes qui sont en Ukraine ñoom demuñu. jaay wala moodu moodu ji dañu dem jàngi te ñu ci bëri euh, dañuy jàng euh, affaire pétrole ak gaz c'est des élèves c'est des étudiants ingénieurs pour la plupart ay boroom xam-xama fa nekk euh, c'est une crème qui est là-bas dont il faut s'occuper euh, parce que ñoom dëkk yi ñu nekk signalé nañu des vingtaines de morts yoo xam ni seen kanam la nii mm-hmm. yónnee nañ ma ay images yoo xam ni des civils, des, oh des civils morts, euh, donc c'est des, des, dégâts collatéraux. Ils ont témoigné que les obus sont rentrés même dans les appartements et ont, on, on dévasté. Donc nous, nous sommes en situation d'extrême détresse. Donc ils ont créé un groupe euh, Telegram où ils sont joignables. Légui, euh, si euh, le ministère des Affaires étrangères veut bien regarder de ce côté-là, mm-hmm. je crois qu'il y a quelque chose à faire urgemment en direction de notre représentation bi nekk Pologne nga xam ni moom moo leen gën a jege parce que ñoom ils sont en contact entre eux ils sont organisés en groupe WhatsApp et Telegram ñu ngi ñu ngi jëm vers la frontière polonaise te ay dëkk yu différent la ñuy jógee ñoom ñëpp mm-hmm. donc euh, war nañu lijjanti seen évacuation mm-hmm. parce que ñoom mënuñu dugg ci bus yi ils ont kenn ki dafa mujj dem ci métro xam nga parce que bus yi ñooy yiy dem ci frontière ñoom dañu c'est la, la, queue et on, on, on, les, on les On exclut les blacks, les noirs. Que, parce que c'est les blacks. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs. Ouais. Tu vois. Donc, lolo, vraiment, manque de autorité pour nous, def ci dara. Parce que loolu taille la C'est très, très, très actuel. te comme monde bi les informations vont vite. Mm-hmm. Vraiment, euh, merci pour euh, une chancellerie mm-hmm. euh, de faire quelque chose à l'endroit de nos étudiants qui sont en Ukraine et qui sont dispersés un peu partout en donc ñoom euh, am na kenn ku ma doon xool léegi ndax euh, ndax wàcc na euh, il est en mouvement du mën a intervenir malheureusement mais dans nos prochaines émissions wala mën nañ ko am après en en off